waaye bi mu koy nettali mu ne professeur bi da doon jàngale droit d'expression loolu rek la Macron wax professeur bu doon jàngal ay élèves am droit d'expression am sañ-sañu génne li ne ci biiram saa su ne nee na ñoo ñu jàpp ko rey ko moo tax ñoom dinañu taxaw temm pour loolu jeex ci àddina bi dinañ boole seen doole ñoom ñëpp combattre lii ba dootul amati te mooy lislaam waaw ñu tuddee ko terrorisme islamique léegi nag lu tax nu dagg action bi lu tax waxul waa àddina ne leen professeur bi da doon jàngal élève am yi droit d'expression daal di dessin yonent bi simmi ko ba mu set ci kanamu élèves yi lu tax waxul lool malhonnête dafa jubul Macron bu juboon du sàcc film bi parce que ñi yeewu boo leen waxee ni kii droit d'expression lay jàngale waaye dafa jël yonti yàlla Muhammad def ko nu danañ ne ko loolu nekkatul de d'expression ne jël baayam def ko waaye du wax yonent bi la def loolu déedéet dafa ne rek da doon jàngale de d'expression mooy lan waa ji nekkul woon ci droit d'expression da doon tooñ te di tooñ borom ngëm nag yow mi koy def yow danger publique nga ku xam yonent ni mu toll ci àddina nga mën a dajale njabootam di ko saaga seen kanam yow da ngay xaru da ngay dof dof lu rek am na ay doom am na soxna comme ni nga ko amee nga làq sa famille yëpp jël fami jaamur exposé ko plus moom mu nekk koo xam ay million yi million yi doomu aadama wala milliard ak lu top ñi ngi ko fat ci seen xol mu gënal leen seen bakan gënal leen seen lepp nga jël ko di ko ci ay bind nan droit d'expression dañu yabaté rek ku ko def dañ koy ray lolu mo normal ku caricature yonent bi dañ la wara ray lolu mo normal té lolu ehlu, borom xam-xam yépp lolu lañu d'accord madhabu imam malik bii ñu nekk dane ku caricature yonent bi sa àtt ci lislaam mooy rey amul leneen parce que yow li gën a bon ci àddina nga def yàlla sax nga saaga yow kooku amul beneen àtti bu dul boobu plus muy nettali ne ñu rey professeur bi police ñëw rey waa ji ko rey léegi bi muy nettali waxul waaj bi mu reyee professeur bi ñoom ñu rayaat ko mu tëb loolu waaw kooku ñu rey moom xanaa du nit te ñoom dañ ko rayaat te France amul peine de France ku rey nit kenn du la rey dinañ la tëj nag léegi lu tax waa ji rey professeur bi ñu rey ko ñoom wàcc nañu loi réew mu amul peine de mort ñu rey fa nit mais nañ jàpp waa ji tëj ko mais dañ ko rey ñoom fonkuñu sax loi yi ni wax c'est faux seeni loi ci ñoom lay dox mais ci jullit bu rey nit dañu lay rey ñi reyoon Charlie Hebdo dañ leen a jàpp rey leen te bi ñu leen di rey teguñ ko ci benn loi France amul peine de mort te dañ leen a jàpp reyaat leen kenn du ko wax ban la ñuy wax mooy professeur bi ñu rey kese loolu mooy seen njubadi ak seenu caay-caay gi ñuy def pour war a àddina yépp yàq lislaam am nañ ci droit parce que seytaane la ñuy liggéeyal waaye nañ xam ne jullit yi ñoom it duñ toog di seetaan di leen bàyyi ngeen dugg seen camp di tooñ man mësuma gis ci àddina jullit bu caricature yonentub jàmbur mësul am parce que ñun ñëpp suñuy yonent lañu te lool ñuy wax ci ñiy caricature yonent yi bu doon ay jullit ñoo koy def di ko def yonti yàlla Isa wala yonti yalla adama wala yonti yalla musa ñun li lañu leen di wax ñom julit bu caricaturé yonent yoy dañ ko wara ray ba pare nekatul julit genn na ci l'islam lool moy atem loolu ñun beraluñ ko julit ak kudul julit kenn ci adina mo amul droit di caricaturer yonent bu meuna do yonent bo meuna a rek yow sa att ci l'islam moy ray parce que li gën tedd ci adina loolu nga jël diko ko ci kanamu doomu adama yi su ko defé nañu fonkat yonent bi ñu xamal ko njabot gi xam ne am na ay tooñkat yoo xam ne boo gisee ñuy créer yooyu parce que bëgg nañoo yëngal àddina benn menace la ñu am mooy lislaam ñoom seen yitte mooy na lislaam jeexal ci àddina ñun suñu yitte mooy na lislaam gën di avancer di gën di jëm kanam